maam Cheikh man duma gis producteur mais petit frère laa gis sama rak laa gis ndax li ñu boolee deret la ndax boo nee kër Alaaji Maada Seck kër sama tante Aïcha Mbaye ne kër Biram Ñing loolu dafa yàgg boobu ñun sax juddooguñu et ma ñëw nag tey kontaan fekk fi famille bi yëpp donc muy plaisir boo xam ne lu tooy si sama xol la mam Cheikh di xale ma yar ko usine ñaari tali mu yàgg bëgg nag ñafe yàgg bëgg góorgóorlu yàgg nangoo liggéey ba yàlla dogal tey mu dem ba dugg nag ci musique mu nekk aussi passion mën naa ni 2007 la ma njëkk yóbbu Nantes mu metti woon trop boobu mi ngi doog ko démarrer ma ne ko maam bàyyil ma déplacé wu man rek fexeel nga dajale ay musiciens parce que boo naree jël group bi yëpp yóbbu ko day metti mm-hmm. mais man je peux ma déplacer nga dajale ay requins ñu dem ma jàpp ci comme saa ñu mën a def événement bu am solo boobu mi ngi door a tàmbali donc depuis 2007 relation bi nag muy suuxat mu koy yàlla di ko suuxat maam di topp relation bi yàgg ma gëm nag yàgg ma tiitaroo fu nekk ndax nit ku nekk tey boo sañoon boo amee sa mag mu nekk ci dara di yëngu si dara e nga jege ko loolu dafa am solo muy événement yi ñuy def yëpp à chaque fois bu ñu amee événement bu mag su dee Paris maam dina jël billet d'avion wala mu taal otoom ñëw France ñëw Paris fekk ma fa yëkkati alalam jàppale ma ko bu dee Sénégal mu ne ma grand wax ma lan nga soxla ci événement bi ñu dugal ci suñu loxo. kon maam bi may gëm liggéey boolewuñu boobu xalaatul woon ne sax dinañ liggéey jamono di dox nag ba tey. mu teg label bu tudd Jéeri Ngoné comme ni ma ko koy waxee chaque jour nee naa ko tey label bi bi nga koy teg même boo yorul xaa boo yorul woon xaalis soo ma woowee ne ma grand damay teg label ma ne la la wax ma lan nga soxla ma mettre ko à ta disposition ndax yow tu es jeune frère sama rakk nga loolu kenn du ko natable rax ci dolli rax ci dolli nga bëgg ma di ma damoo di ma sagoo fu ma nekk nga fekk ma fa kon je pense que ni tey li nga def ambition la et que vas-y fonce donc bi yàlla dogalee baakan dem Europe ci confinement bi dem uti woon ay matériel fekk na boobu presque démarré woon naa sama album bi waroon génn ndax bi ma jógee Prince Art rek laa commencé pour génne suma album ak suma label PDG ma ànd ceeg suma rakk maxtar ñu ciy liggéey ba jot a defar sax ay morso suñu liggéey rek dama koy envoyé Bakar ne ko booy déglul te nga préparé parce que boo ñëwee rek dañuy dugg ñu nekk ci mouvance boobu parce que man liggéey rek laa gëm man gëw ma leneen gëw ma succès gëw ma leneen parce que. comme ni ko aale waxee fi ma jaar moo metti man maa ngi juddoo usine ñaari tali yaroo ginnaaw raay teel a bàyyi sama jàng dem jàngi métier Parcelles Assainies donc mu metti trop ma juddu ci famille boo xam ne nag nu ngéwél lañu waaye dañoo yàgg am jom yàgg bëgg liggéey donc ma nekk ci yoon woowu et que dama gëm ni nag àdduna lu nit di am rek liggéey moo la koy may moo tax man awma dimanche awma samedi man bés bu yàlla sàkk damay liggéey loolu moo tax ñu naan Pape Diouf dafa timide Pape Diouf dafa yaru Pape dafa dal mhm. parce que aw ma jot damay liggéey rek ci loolu rek la laay sax donc bi loolu amee baakan nag dem nant seeti suñu doom jooju yu daja fa ak maam Cheikh ñu woo ma téléphone ma kontaan trop ma kontaan lool lool lool lool mu ne ma mais booy ma ne ko waaw mu ne ma maam nday ñu ngi doon waxtaan mais dafa bëgg ñëw Sénégal liggéey si vraiment nee naa ko ñi ngi préparé suñu album mais nee na bu sañoon moom it sarak la te dafa am ci yow cër bëgg na ñëw jàppale la ci liggéey bi ndax nag rakkam magam nga te màgg na parce ma maam vraiment ñu tooñoon tooñante ma koy fàttali démb ñuy waxtaan mu ne man a grand ñun say rakk lañu te ñëwuñu fii Europe di nelaw te ñun dañ lay tiitaroo foo xam ne sax nekkoo fa affaire business bugguma sax mu dox suñu diggante mais man maa am plaisir u tey dama am label ma bëgg nag dooree ci yow sa album dama bëgg nga jox ma exclusivité bi ma def ko mais loolu keroog j'étais fier ndax loolu laa doon ñaan yàlla ma ne ko maam mu ne ma waaw ma ne ko loolu bul yeggalee ñëwal am nga loolu bul sax xalaat ndax man samay mbir géej la dafa yaatu rawatina nag yow ngay sama rakk ma yar la kon tey fekk nga ma dugg ci suma production ndax lépp ngi fi lépp mat na waaye nag tey li laa doon ñaan yéen samay rakk ngeen dem di ma suivre ngeen di gis sama liggéey partout dans le monde ba am yëg-yëgu ñëw nag jàpp ci liggéey bi ndax nit ku nekk loolu ngay ñaan yàlla kon ñëwal bul xalaat dara li nga bëgg am nga ko bu doyul sax man ma jël def ci mu dolli mu ñu dolli mu nekk nag lu rafet bi loolu amee ma waxtaan ci ak ñi ma ci war a waxtaanal muy suma staff woo Maxtaar suma manager woo Xaadim sama rak ñu waxtaanee ko ñoom ñëpp ñu kontaan ci ñu ne ma mais maam suñu frère la na ñëw bu ñëwee dañ koy ubbil na ñëw toog jël affaire bi parce que nag mérité na ko donc muy loo xamante ni tey loolu laa dese ci musique parce que man amatuma lu may prouver macha allah sant yàlla li ma dese rek mooy sama ay ñu àndandoo booloo bokk ndey bokk baay liggéey pour développement wu musique sénégalaise ndax tey Sénégal amatul dara lu ma fi prouver ci kattanu yàlla donc tey Diery Ngoné jël nag affaire bi en mais bi mu ko jëlee ba tey. maam toqiwul sonnul tàyyiwul léeg-léeg sax dama koy gëdd naan ko booy dee ma wax parce que tellement daf ma ruus ba nga xam ne su toogeeg man du bëgg a développer il faut mu jaar ci xaadim wala mu jaar ci baakan pour mën a waxtaan ak man mais loolu lu baax la parce que respect la ndax nit bu la ruusee rek mooy respe am na et di wax nag que ni ñun liggéey rek la ñu gëm ñi ngi préparé album bu am solo album bu mag comme ni ko Bakane waxee ndax ñun suñuy def suñu liggéey duñu duñu defantu dañuy liggéey liggéey bu sérieux ndax Sénégal ñoo ñuy xaar diaspora ñoo ñuy xaar kon album bi alhamdulillah maa ngi koy wax ci kanamu presse bi ñi ngi si liggéey bu am solo mais xër gu mu am si man vraiment ak aussi xol bi muy demee moo tax ñu ne nañu def point de presse bi pour xamal sénégalais yi que ni albumu Pape Diouf bii di génn Jëri Ngoné production ñoo yore exclusivité bi ñu koy ñaanal nag may sàkku Sénégal ñu ñaanal ko ndax xale la te am na jom xale la aussi et que soxla na ñu soutenir ko ma koy wax ne ko maam bul ragal yàlla dina def sutura ndax fi nga ñëw si sa mag nga si sa mag nga ñëw si sa xarit nga ñëw si sa ay mbokk nga ñëw et ñi ngi fi fekk aussi dañ lay ubbil à bras ouverts muy suma manager Makhtar di sama rakk Xaadim ak tout le staff ñoom jibi fay ñëpp a ngi fi su ma nee staff bi rek yaatu na ndax léegi loo la musique laaj musique li mu laaj mooy coalition bokk ndey bokk baay Sofia wax na ko sànq donc ba ci yeneen artistes yi nga xam ne bëgg nañu soit sentir nañu tey liggéey ak Mame Cheikh bu leen am jeune ñëw leen ngeen seetsi ko ndax Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar